Moustapha tey nga wara a relation entre force de l'ordre et automobiliste muy tension bu. bu inutile bu inutile na ah. mm. a la. Mm. tension bu inutile la bu existant la. mais li indi tension bi lu pour moi en général les automobilistes sénégalais. Mm. ils sont un peu réfractaires au contrôle. automobiliste sénégalais bu leen policier wala gendarme arrêté rek. automatiquement dañuy xaw a gis seen non non non yow yaa waxul bu baax kay. dañuy xaw a gis seen bopp dañuy mel ni contrôle bi du lu normal. d'accord alors que le contrôle de police est quelque chose de normal léegi nag ñu ci bari la moo buñ ko jàppee lu normal mooy nekk code la dafa am ñaari parti dafa am lu ñuy woowee parti réglementaire am lu ñuy woowee parti législatif mhm, mhm. ñoom parti réglementaire ci la ñuy yem mooy lay jàngal les règles de circulation le code de la route ainsi maintenant parti réglementaire bi nag moom mooy les infractions yi nga mën a commettre mhm. li la ci mën a fekk comment on peut passer d'une simple infraction de police à un délit parce que c'est des choses qui se passent souvent ci tali bi da ngay def infraction au lieu nga yem ci nga def lu ko aggrave ba mu mujj nekk délit dootul doon contravention mais arrestation lay lay mujj nekk léegi nag am na tenue bu nekk ci tali bi ñaar moom moo ko fay mën a taxaw contrôle de police wala contrôle de sécurité léegi nag contrôle de contrôle de route mooy lan mooy nga taxaw nga romb ñu arrêté la ne la présenter les pièces du véhicule présenter pièces yi ñu la présenter sa permis de conduire nga présenter bu boobaa moom bu fekkente ne lépp mat na moom bu ko neexee mën na xool sa comportement yow conducteur bi parce que un policier il a une vision que nous citoyens simples non pas mën nga ko paraître suspect mën na la nga couper moteur bi nga wàcc ñëw bi maal bi là ce n'est plus un contrôle de police mais un contrôle de sécurité Vous y valise si mal aussi il y ko valise contrôle parce que pas mal de gens le recusent. ils disent que ne daf ma ibiloo sama amu droit wala daf bagage alors qu'il a le plein droit hmm. tout comme aussi Nicolas Lachon Kerok, des fois tu vois des gens le policier est ma laaj ma jox ko y a des qui demandent cela mais y a d'autres citoyens yoo xamante ne comprendre lu ñu loolu souvent bu leen ko laajee il prend le pour une risée jàpp ne kii li muy wax ni waxu dof la alors dafa am lu mu bëgg lekk ci ñoom voilà justement pour ñoom waa ji il cherche la petite bête alors que loolu moo normal contrôle il faut chercher la petite bête d'ailleurs c'est pas pour rien ñu ne contrôle pour xool lépp la ñetti élément ñoom ñooy contrôler élément oto bi nekk oto ñetti énergie moo koy dawal soit énergie gasoil soit énergie essence wala énergie gaz. léegi yow nga jënd oto mu nekk essence. dafa yaa wax lu am solo. lu sénégalais yi war a war a dégg. ñu ci bëri xamuñu ko. Hmm. nga jënd oto mu nekk essence. waaw yow nga ne essence bi dafa cher. nga daal di jël sa moteuru essence boobu teg ko jël moteuru diesel teg léegi policier bi contrôlé la gis ne carte grise bi ñu ngi ci bind énergie essence. mais moom il a une écoute technique parce que modèle bi modèle diesel la si tu es de bonne foi nga ne waaw mu yem fa si tu es de mauvaise foi nga ko dee mu lay bir capot su ñu bee capot moom su gisee nak que modèle diesel la mais ça c'est une déclaration c'est une transformation non déclarée cas de fraude la dafa war a immatriculer immobiliser oto bi ñu ci bari nak dañuy japp né abus la bu ko police def alors que du abus infraction la légui nak infraction yi daf ci am yoo xamante ne dañ naan waaye kii li muy laajte exactement te li laaj dëgg la exactement infraction yi nag daf ci am yoo xamante ne ça concerne le conducteur yii ça concerne le véhicule su y a un conducteur qui a def une faute de conduite une excès de vitesse wala takkoo ceinture jaar sens wala téléphone au volant. d'accord laa suñu la contrôlé ba pare ba notifier la infraction bi permis bi la ñuy retirer parce que yow conducteur bi yow yaa def erreur. Mhm. là on retire le permis on donne une arrestation. mais ce fait ne c'est lié au véhicule maanaam défaut de chargement défaut de surcharge wala défaut technique Madame, à mon visite technique. Mhm. là c'est des choses comme ça concerne le véhicule. bu ñu la attesté ba pare dañuy retirer carte grise bi mais dañ lay bàyyi ak sa permis ak assurance bi mais carte grise bi ñuy retirer jox la assurance léegi nag am na ci yoo xamante ne dañ la war a bàyyi nga dem ak oto bi mais am na ci yoo xamante dafay demander immobilisation oto bi lu ci mel ni surcharge mhm. on doit immobiliser le véhicule jusqu'à cessation de l'infraction mais Gambie duñ def noonu ñoom ah Gambie duñ def noonu waaw xam nga dëkk boo surchargé euh, ñëpp dugal leen ci auto police bi yóbbu leen waa mais boo amul 3000 da ngay woo sa mbokk mu fay 3000. waaw mais li muy wax nii mais moom moom cest à loolu mooy dëgg loolu la war a def ci réew mi nag. c'est-à-dire fii bon ñun code dañ ko jël à reculons cest ñun dañ ne le conducteur responsable du véhicule et de son chargement. Mm. yow tey jii nii sooy dawal oto tu es responsable du véhicule ki toog sa wet yow yaa ko war a insi mu takk ceinture am. bu mm. takkul ceinture moom. Côte vert Sénégal prévoir une sanctions pour mon maire, pour yow. Vous ah. êtes dans un autre pays par exemple si tu vas en France le code de la route français a prévu une infraction une contravention pour l'usager qui ne porte pas sa Mais qui te t'occupe là-bas. d'accord mais fille, toute la responsabilité repose sur les épaules du conducteur. parce que il est le responsable du véhicule. des passagers et de son chargement. d'accord maintenant y a une infraction qui xamante dafay nécessiter ñu bindal la. Hmm. nga par contre il y a une ne dafay nécessité ñu immobiliser Nous, bi. d'accord am na nécessité immobiliser Il bi a une nécessité léegi nag Yérini cité ñu bind la nga dem mooy yan téléphone au volant. non xanaa lii moom loo ci commenté Tafa. bon lii surcharge la boo xamante ne ça se passe dans les moments d' comme ay lamb comme ay meeting am na benn genre tolérance boo xamante ne mi ngi si am parce que boo waxee ñu ne la. waaw boo waxee ñu ne la c' est un grand jour mais meeting yi dafay am. am na tolérance bu siy am ñu ne lii meeting <laughs> am na am na tolérance bu am.

man musuma gis loolu sama àddina. hamburger hamburger téléphone. non ba pare di dawal. ngay wax mu ne la maa ngi koy cher. peut être hamburger ma ne ko wuyu ma may ma wàcc. mënoon <laughs> def loolu moom. <laughs> jar na wàcc vraiment. <laughs> très bien. voilà donc je termine ay tey ñu bàyyi la nga def sa kàddu bu léegi je disais que ne léegi infraction bu amee. Euh. bu ñu ko constaté ba pare. bu ñu la joxee attestation bi. yow lii sa wareef yow mooy. nga lire attestation bi xool ndax amul erreur bu fekkente ne amul erreur say droit jeex nañ da nga war a taal sa nga dem bureau contravention bi nga war a mm-hmm. dès l'instant que tu quittes le véhicule tu as des intentions douteuses là tu peux passer de l'infraction au délit waa ji récupérer attestation mu bind ci ATI mm-hmm. attitude très incorrecte mm-hmm. loolu su amee permis de duñ ko déposer bureau contravention mais commandant corps urbain lañ koy jox yow soo ñëwee di ko récupérer da lay entendre sur PV bu la entendre sur PV pour rendre compte procureur su fekkente ne procureur dafa jugé nécessaire ñu bàyyi la nga ñibbi ñu bàyyi la nga ñibbi su fekkee dafa jugé nécessaire ñu téye la ñu téye la ba jour bu mu lay recevoir ah, atte yi loolu mooy atte waaw non atte yi moom saa yoo ko amee normalement ils font preuve de tolérance mais saa yoo la bindee atte yi yow da nga war a jàkkaarloo commandant corps am de sur PV nga dem jàkkaarloo procureur d'accord parce que c'est des actes douteuses yoo xamante ne moom mooy indi nit ci ci atte yi très bien à chaque fois su dee recevoir nga attestation il faut avoir une attitude très correcte nga dem bureau contravention fay parce que contravention Sénégal quoi qu'on puisse dire cherul macha allah jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax relation entre force de l'ordre et automobile mobilise tension inutile ñu andon ci ak Moustapha Guèye mu jox rendez-vous mardi prochain